واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعله دأبا comme niñ koy waxee saa su ne ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu dëgg-dëgg ca ñooña mooy mag ñi baax ñooñu nga xam ni dañoo jaayanteeg ki jaayanteeg yàlla ci nekkal ko ci téereem bi muy seenu dund di seeni yitte di seeni bëgg-bëgg tey ñu ngi woon ci dars bu bees lañu war a tàmbali ci madd madd mooy xëcc xëcc du alxuraan fu la neex xëcc nu la neexee xëcc ak nu la neexe gàttale xëcc daa am luñ ci tëral ci wàllu qiraat bi sifatin am muy qawaid ya am lu ci naafi tànn am lu ci warsh tànn ak lu ci xaalun tànn sooy tënku ci riwaayaat benn ci riwaaya ci riwaaya yooyu war ngaa xam bu baax sëriñ ba nga tënku ci njànginam moom lu dik tànnee fam ca njàngin wa boo bëggee jàng njàngin wu wér alqawlu fi lmamduudi walmaqsuuri walmutawassiti ala almashhuuri alxawlu wax nañ leen ni saa yu la ko boroom téere bi waxee mooy baabun moom noonu lay indee baabun alqawlu wax a ngi bunt ngi lu bees a ngi fii lan fil mamduudi ci lus war a xëcc ak lan wal suuri ak loo xam dañ koo war a gàttal maanaam ci biir yañu war a xëcc daa am luñ ca war a xëcc xëcc gu mat sëkk mooy ishbaa ishbaa buñ la ko waxee rek mooy xëcc gu mat sëkk bu amee juróom benn jëm kaw àggee juróom-benn jëm kaw mooy isbaa ñaar ñaar la ñaar njëkk yi mooy tabiya yi yeneen ñaar yi ci topp ñeent lay mat kon bu boobaa loola mooy mutawassat bu defee juróom-benn juróom-ñett bu jéggee juróom-ñett nag fola jéggee fola fa mooy xëcc baat gi xëcc goo xam ni danga nga cay wone say fond waaye tënkuwoo ci xaayda bi maqsuur kon mooy ci biir mam duuti kii xasru kii madd booba lañuy tudd tudd maqsuur waaye lu ñu war a madd moom kenn du ko xasru lu ñu war a madd maddan tabiiyan kenn du ko xasru mën nañ koo tawassut wala ñu bàyyi ko ci madd yi danañ ci dikk leeral ko bu baax ci madd ndax bind bu njëkk bi dañoo bëgg mu gën a nekk leeral lan mooy madd wal mutawassiti ak mu mutawassit ndax gannaaw ishbaa am na lu ñu madd bu baax a baax te warsh nag muy kenn ci ñaari sëriñ yi ñuy jàng moom ishbaa moom mbiram la maanaam madd matal madd matal matal ko alal mashhuuri maanaam tawassut gi alal mashhuuri ca lañ siiwee lañ siiwee ca quraaw ya ak lañu siiwee ci imaam yi nga xam ni moom lañuy jàng seenum njàng kon day taxaw day jar ñu taxaw tuuti leeral madd madd ñetti araf ñoo ko am muy alif waxuma hamza nag bul jaawale alif ak waaw ak yaa ñoom ñoo ko moom ñetti araf yooyu luñ bokk mooy ñetti ñooñu ñépp ci biir lañuy jóge biir nag jubluwuñ ci biir bii lekk di dem biir ñu ngi ci jublu lëm wi nga xam ni moo nekk ci nit tàmbalee ci ay tuñam yam ci fa nooga yam mooy lëm hmm? ku dëkk ci àll bi xam guy gu am lëm mooy pax mu nekk ci biir nit pax moomee yépp jaw fu lañ koy tudde ñoom ñett ñoo ko bokk fa aliful jaw fi wa uxtaaha wa hiya xurufu maddin lil hawaa'i tantahi comme ni nga ko indee ca ibnu jazariya danañ ko téere boobu bokk na ci ñu war a jàng incha allah alif ak ñaari mbokkam muy waaw ak yaa ñi ngi génn ci fu ñuy tuddee jawf jawf mooy lëm yu nekk ci jihaasu nit lëm yu ci nekk loolu mooy jawf comme ñett ñooñu ñëpp ñoo bokk bokk foofu bokk foofa lu mu leen jural mooy nekkul maxraj mu xaqaq madbuut mu rëkkës nekkul génn waay bu ñu wax ni fii la teg ci baaraam nga xam ni su foofa amoon góom boo fa génnee xaraf yi dangay ngay yëg mettit wa xam nga boo nee ba ba boo xam ni wóor na la ni fa bi jóge soo nee sa sa am nga point boo xam ni wóor na la ni fa la saa bi jóge xaraf woo jàng ci araf yi bu dul ñett yi dina am génn waay bu ñu xam bu tënku bu mënta gudd bu tënku bu mënta gudd ba bu fekkee ba rek nga wax boole woo ci waneen xaraf tu gudd doo ko mën a yokk doo ko mën a wàññi boo nee ba ba mënoo koo yokk mënoo ko wàññi boo ko yokkee da nga cee boole waneen xaraf nga ni baa booba kon waneen xaraf nga ci boole waaye boo nee ba rek doo ko mën a yokk doo ko mën a wàññi ndax dégg nga loolu kon xaraf yépp nanguwuñu yokk ak a ñetti xaraf ñoo nangu yokk ak a wàññi mooy xarafi madd yi boo nee a a ñett ñu tollowuñu et pourtant a la man ngaa wax loolu ci wuu man ngaa wax loolu ci kon ñetti ñoo ñooñu nga xam ni dañuy jaar ci biir ci jawfu liñ bokk mooy bokk dëkk ci jawf benn jàppal loolu laneen liñ bokk mooy nangoo yokku moo tax madd di àttewu ci kawam ndax madd kon mënt àttewu ci kaw koo araf woo xam ne nanguwut yokku leer na loolu leer na kon ñaar yi àttewu ci ñoom mooy madd ak liin lii nag madd wax na ne li muy firi mooy xëcc mooy yokk rek tëbb def dara yum ditkum rabbukum yum didukum wal baxaru yamudduhu maddahu mooy yokk na ko tëbb lu am dara mu mat nga yokk ci leneen lu fa jëlewul lu jëkk la waaye day yokk ci kaw lu jëkk la lu ma yokk su fa jëlee lu yëkk la du yokk wàññ kii lay doon soppi lay doon bu dee lii nag mooy safaanub xushuna xushuna mooy ñagas araf itam dafa mel ni dañoo amul ñagas ki seen bopp boo leen dee tudd ba mu des arafi lii yi nga xam ni tey boo doon wax shay min shay maanaam sonnoo ci ay jooju yaa googa na nga ko na sukkoon te fatxa jiitu ci sonnoo ci nanga nga sonne ci ba ngay wax sha min shay maanaam dafa mel ni shay danga ci rek fa rëppeelu noonu danga ciy rëppeelu kon sonnoo ci mu nekkaat saw saw nga xam ni danga nga cee yomb gi ñu yomb ci ci génn ak tuddin wa boo ko gam-gam leeg yeneen xaraf yi moo tax ñu tuddee ko xor xarfa liin waaw loolu leer na taarif nag dañ ko bëggoon a tàmbalee ci bunt bi ba ñu xam li ñuy wax doog indi atte yi léegi nag wal maddu wal liinu ñaareelu bayit wi wal maddu wal liinu ma wasfaani lil alifi daifi laazimaani wal maddu kon xam nga madd léegi bu ma ko laaj leeral naa la ko wal ak liin ñaar ñooñu ma an àndandoo ñoom ñaar wasfaani ay melokaan lañu lil alifi daifi ñeer alif mi nga xam ni dafa daif wax naa la bul jaawale alif ak hamza alif mooy kooku di xëcc te foo ko fekk day am sukkoon foo ko fekk sukkoon la ndax xëcc sukkoon la kooku mooy alif mooy liif gu amul xamsa ci digg bi amu ko ci kaw amu ko ci suuf te day am lu ko jiitu te la ko jiitu day fat kon liif moomu foo ko fekk liin la ndax melokaani liin yi mi ngi ci ndax nooy gi mi ngi ci ndax boo nee am na madd waaye di ci gis liin luy liin gi mooy boo say benn maxaraj rek nga def jàll shay noonu ngay defee tam boone ne ba ba foofu nga génne maxaraj ba dem ci a rek continuer mu nekk liin foofa kon sifa la liin sifa la melokaan wow maddit sifa la lil alif alif moom du wax charte alif du wax charte ndax alif foo ko fekk fatxaa koy jiitu kon doo wax charte aleykum salaam loolu du wax charte kon amul charte moom aslan moom alif aslan ci cosaanam dafa taqoo ak liin taqoo ak madd dafa taqoo ak liin taqoo ak madd bis bu génnee liin ak madd rek dootul nekkati alif hamza nga koy tudde hamza nga koy tudde bu boobaa bu boobaa mooy boo commencé moom ci boppam mu am tikkeen googu bu boobaa dootul tuddoo alif hamza lay tudd leer na bayt yi ma baamtu ko wal maddu ma maan wasfaani ñoom ñaar madd ak liin wasfaani ñaari melokaan lañu li ay ba jëlal laazimaani yoo xam ne duñ teqalikook moom xam nga liin day waaw di teqalikook moom day ànd yaa di teqalikook moom madd day ànd ak waaw di teqalikook moom day ànd ak yaa di teqalikook moom dinañ la ko indil bu ñuy indi ñaari xaraf yooyu waaye alif nag moom fii ak mi ngi nekk alif day ànd ak liin day ànd ak madd te fatxa nga koy jiite jiitu moo tax mu ni laazimaani lil alifi daif lan mooy baat alifi daif ndax alif bu nga ko bëggee teqatle ak hamza dañ lay wax dof gi ci nekk ci moom xam nga hamza daiful hamza daiful de araf wu dëgër la bu génn am maxraj bu xóot bu jafee génne ba noppi sax am jahriya jahriya bu demee ci sifaatul xuruf yi yiy dëgëral xaraf yi hamza da caa bokk booy jàng nga ni e e ndax di dégg kàndang guy riir e e e dégg nga am nga looy dégg muy raisonné e loolu mooy jahriya waaye boo nee a ah, dafa am maxraj bu mu génne bu dëgër boo xam ne mu nga ci jëlëgu jëlëgu gémmiñ ga fa put ga jeexe fa ci jëlëg ba jëlëg mooy fa mu fa mujj foofa lay génne te bu fay génn dafay génne génnin bu dëgër bu foofa amoon góom doo mën a wax xaraf wi bu amoon góom foofa wala boo ko waxee dana metti wala mu nàcc hmm? kon kooku du daif kon bu ñu dee gam-gam ñaar ñi kenn ki bu dee nag wala nga ni ba kooku ñaareel gi ngay mujj tudd nga xam ba nga waxee baa ba pare ci moom nga nga nga sukkandiku di guddal kooku dafa daayif ndax moom amul taxawukaay amul saxukaay amul jahriya amul wenn melokaan bu koy war a bokk ci ñu dëgër ñi moo tax mu tuddee ko lil alifi daayif yi leer na baat boobu rek laa bëggoon a firi de loolu leer na léegi nag ñu dem ci yeneen ñaari xaraf yi summa huma fil waawi wal yaa i mata an dammatin aw kasratin nashaata ñoom ñaar nag lan ñaari wasf yi wasfaani laazimaani dañuy nekk nag ci waaw ak ci yaa waaye waaw nekk guñ nekk ci waaw ak yaa dafay am charte ya yaquulu yaquulu ya ya yaquulu ya bi foo ko génne sëriñ bi gaawal wax ma dégg sëñ loo moom xam na ko moom loolu la sant kee bu ragal waxal boo nee ya ya mi ngi bokk ci xarafi làmmiñ yi ya fa kon ba nga ne ya ba nga ne wa tam wa moom duñu mën a bokk foofu leen maasul nag moo tax mu ni mataa am dammatin moo tax mu indi la sart ni la mataa bu fekkee ñoom ñaar nashaata dañoo judd sosu an dammatin aw kasratin ci damma wala kasra maanaam ki sosu ci damma gi mooy waaw ga ki sosu ci kasra mooy yaaga su fekkee damma kasra ga dañoo sosoo maanaam waaw ga ak yaaga dañoo sosoo ci damma kasra su boobaa dañuy yéeg ci kaw wàcc wàcc waayu alif ga dégg kon ñaari maan yi ma yi ngay gis su dee kasra daa ñëw yaa topp ci xarfu madd la hmm? xarfu madd la bu dee damma daa ñëw waaw topp ci xarfu madd la bu ñu ñëwee ci sababi madd ya bay agsi di ko jàng ci ñaareelu darse bi danañ ci joxe ay misaal yaatal ko ba nga xàmmee bu ci ne nuñ koy madde waaye bu kasra ñëwee yaa topp ci su boobaa kas yaa googa xarfu madd la bu beneen chart ba matee beneen charte ba mooy hamza topp ca su boobaa dañ koy madd nuñ koy maddeeg lu ci war su wax ak lu ci xaalul wax ak lu ñu koy def loolu ci deuxième darse bi la dégg nga waaye bu mu nekk liin xarfu liin nag xam nga alif gële daf la noon moom dafa nekk xarfu liin aslan ci tabiaam waaye ñoom ñaar pour ñu nekk xarfu liin il faut fatxa day ñëw sukuun nekk ca baat ba maanaam bu fatxa ñëwee baat ba sukoon comme saw saw saw walla bayt bayt xawf xaw wala shay comme warsh na bu boobaa boobaa gën a neex a dégg ci ñun waaye fatxa moo ñëw xaraf yi topp ci muy yaagi yaa maddiya bi Hmm? yaa maddiya topp ci wala fatxa ñëw waaw maddiya topp ci mooy waaw gi xëcc su boobaa nangay def mooy liin loolu mooy liin atte boobu leer na wa siixatu ljamici liljamici tumaddu qadra maddiha tabici wa siixatu ljamici definu nag tëgginu jamii al quraa quraa ju njëkk ji man ngaa boole ñaar yëpp mën nga koo safaane mën ngaa wax siixatul jamii nit ñi mat madde ñëpp yëpp madd yi ñu la jàngal yëpp muy waaw ji ak alif gi ak yaa gi ni ñu koy mat madde lil jamii mbool jamii mboole ñeel mbooleem jamii quraa yi su boobaa génn na warsh génn na xaalun bépp xaar yi ci maddu tabiia yi da koy xëcc la mu koy xëcce ñoo bokk nañ koy xëcc maddu tabiia yi moo tax mu ni tu maddu qadra maddiha tabiia yi al maddu tabi'i amul xilaaf ndax maddu tabi'i léeg-léeg sax booy jàngale yenn téere duñ ko jàng duñ ko tuddee madd waaye madd la nag ndax madd mooy nga xëcc xaraf wi lu ëpp xadra xaraf wi boo nee xoola boo noon xa xa la ñaari masque yi ñëw na masque xaa ñëw na masque ak la ñëw na waaye ba nga nee xoola andi woo masque gu bees ak xëcc nga andi xëcc googu nga indi madd la waaye loolu la ñuy tuddee maddu tabi'i maddu tabi'i ni ñu koy xamee mooy mooy madd goo xam ne bu fi nekkul baat bi mooy yàqu baat bi mooy yàqu tajwid bi du yàqu xam nga boo noon jaa jaa xam nga da nga koo madd waaye boo ko maddul woon nga ni jaa yàqoo baat bi yàqoo tajwid bi nga yàq waaye baat bi ba doon làkk araam nga ni jaa a jaa la amul problème waaye bi nga nee xoola nag moom il faut nga ne xoola ba mu amu xëcc parce que boo ko xëccul baat bi ci boppam moo yàqu kon gépp madd goo xam ni boo ko deful baat bi yàqu indi ko ci yaquulu muy waaw ga yaquulu boo noon yaqulu wa andi woo waa gi baat bi yàqu boo nee xiila nga ni xila indiwoo yaa gi baat bi yàqu kon gépp madd goo xam ne boo ko indiwul baat bi mooy yàqu baat bi mooy yàqu mooy lam doon doon dootu ko doonati baat bi fi nekkoon nekkatu kooku mooy madd tabia loolu moo tax mu ni maddu tabii nag mu ni wa siixatul jamii lil jamii tëgginu mboolem madd yi yëpp lil jamii mboo ñeel mbooleem xuraaw ñoom ñëpp nañ koy jànge mooy tu maddu dañ koy madd qadra maddiha qadra kem nuñ koy xëcca tabiya yi gi nga xam ne mooy gu tabiya leer na kon foofu la bind bu njëkk bi di yam jàng nañu madd xasru mutawassit lan mooy tawassut lan mooy maddu tabiya yi bu ko defee ñu ñëw nag incha allah ci bind bii di ñëw ci madd gu gudd gu dolliku gi nga xam ne moo tax quraaw yi di wuute subhaanaka allahuma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعله دأبا مسكن التعلم